Cérébraux International. Cérébraux International. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir ci réew mi. noonu dañuy bàyyi xel ci seneinfo point net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen dëgtal li gën a fës ci xëtu yéenekaay yi eh, tey jii di vendredi 12 août 2022. tey tàmbaleeg yéenekaay national bii di la soleil ñoom nag fësal nañ seen xëtu njëkk conseil constitutionnel mi nga xam ne confirmé nañ résultat yi commission nationale de recensement des votes joxe woon ci élection législative yi wante itam ñëwaat nañ. ci njiitu réew mi Macky sàll mi nga xam ne démb décoré na élèves yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ki Sénégal ci concours euh, général bi. bu ñu paree dañuy dem ci quotidien réew mi ñoom naka la ñu fësal euh, moom mooy euh, nomination gouvernement bi nga xam ne ñu ngi koy xaarandi ñu ne sax mën na am bésub ajuma bi lay doon ñu nga nakk fësal ci seen xët ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Daouda jàll ñu jàpp ne daal moom homme de confiance la bu. njiit réew mi Macky Sall te it euh, bokk na ci euh, meilleur ministre des finances ci euh, ñaar fukki at yi nga xam ne kon moom lañu ñu weesu fësalaat nañ itam Pape Diop mi nga xam ne nag rejoindre na lii di Benno Bokk Yaakaar démb Walf Quotidien dañoo ñëw ci nomination bu premier ministre bi ñu gis ne fi nekk nii nag euh, mu ngay traîner maanaam euh, yéex na wante itam ñëwaat nañ ci Pape Diop euh, mi nga xam ne daal du mooyu na opposition ba kon dem fekki njiitu réew ma ñëwaat nañ itam ci ñeenti suñu gaynde yi nga xam ne fi mu nekk nii nag ñu ne gannaaw bi nga xamee ne 15 jours rek moo des ci mercato bi seenu ko ëllëg kon leeragul mu mel ni Gana Gueye Abdou Diallo Bamba Dieng ak Kouyaté enquête yéen kay dañoo fësal seen xët bu njëkk ba léegi Pape Diop ñu ne nag dem ba nga xam ne dem na ko ci Benno Bokk Yaakaar ndax loolu dina sowee Macky Sall wante itam ñëwaat nañ ci njiitu réew mi nga xam ne kon gannaaw bi nga xamee ne décoré na élèves yi gën a ràññeeku euh, artu na nag élèves yi nga xam ne ñoom ñoo doon yàq ay salle de classe ak euh, yi ni mel ñi nga xam ne nag ñoom ñooy le quotidien ba léegi li ñu fësal moom mooy Pape Diop ñu ne nag Good Diop moom nag def na liggéey bu baax boo xam ne baax na ci njiitu réew mi euh, Macky Sall wante itam ñëwaat nañ ci hôpital Aristide Le Dantec ak delocalisation ba maanaam àndal bañ ko war a àndal ñu ne nag jafe-jafe ak jafe yi nga xam ne kon jur nañ ko ñëw nañ sa le mandat yéen kaay dañoo ñëw si ba léegi Pape Diop euh, li mu jël dogal euh, fekki Euh, lii di camp présidentiel bi ñu ne loolu nag euh, booy xool sax ak décision homme d'état la te nag da koo def ngir daal euh, bañ indi ay blocage ci li nga xam ne moom mooy doxalinu institution boobu di assemblée nationale ñëwaat nañ itam ci benn saisie de faux médicament muy ay garab yu baaxul yoo xam ne dañ koo jàpp te seen njëkk di ay millions yu bëri l'évidence quotidien dañoo ñëw ci campagne de commercialisation de la l'arachide maanaam euh, li nga xam ne mooy campagne gu njaay gerte gi ñu ne nag kii di Adja Ndiouk mbay day sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mu yóbbu njëgu gerte gi téeméeri dërëm ñëwaat nañ itam ci Pape Diop euh, miñ ne daal kon jox na majorité euh, kii di njiitu réew mi Macky Sall lëkk l'observateur nag dafa ñëw ci li nga xam ne moom mooy ba léegi Euh, concours euh, général bi njiit réew bi nag ñu ni démb décoré na élèves yi gën a ràññeeku wante itam ñu ne fi mu nekk nii moom Macky Sall euh, war mu ngi dem fële ca Tchad ngir daal en tant que président Union africaine. jéem a addu ca la nga xam ne moom mooy crise ba ñëwaat nañ itam ci Pape Diop mi nga xam ne rejoindre na kon lii di Benno Bokk Yaakaar ci ne nag décision bu jël la te sax waxtaanul ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, coalition bu parti au pouvoir bi le populaire wala boog vox pop dañoo ñëw ci euh, ab sénégalais bu am 16 ans boo xam ne ñu ne dañ koo faat police bu Allemagne ca Dortmund ñoom ñoo ko faat dóor ko juróomi bal ba mu ñàkk euh, bakkanam ñu ne fi mu nekk nii nag autorité ya daal nee nañ enquête ba dina leer ba ñu xam euh, li ni mel ñëwaat nañ itam ci conseil constitutionnel ak sept sages yi ne daal validé nañ député yi nga xam ne kon annoncé nañ ko euh, ne parti bu ne wala boo coalition bu nekk am na ko le témoin yéen dañoo ñëwaat ba léegi si Pape Diop. mi nga xam ne nag euh, dem na ca camp présidentiel ba Benno Bokk Yaakaar ñoom nag dañu ne dikk nañ ci li nga xam ne moo tax ba Pape Diop jël bile dogal ñëwaat nañ itam ci Mimi Touré mi nga xam ne nag dañoo jàpp ne daal euh, koo xam ne la dafa demaloon njiitu réew mi si ay jongante wante lu mu ñàkk la bés bi le jour ñëwaat ba léegi ci hôpital Aristide Le Dantec bi ñu war a defaraat mu ne fi mu nekk nii nag ña nga xam ne ñoom ñooy maladie rawatina ñu am cancer ñu ngi ci ay métit yu euh, taratar ñëwaat nañ itam ci ab waxtaan boo xam ne séq nañ ko ak Noah Fadiga euh, doomu euh, Kalilou Fadiga moom nag mu ngi naan dafa yàgg euh, bëgg football lii di réew Sénégal L'As Quotidien ba léegi li mu fësal moom mooy Macky ak diplôme ya wala boog décoration cadeau ya nga xam ne jox na ko élèves yi gën a ràññeeku wante itam yeneen i élèves yoo xam ne kon dañ doon yàq ci biir année scolaire bi ay wala boog. ci li nga xam ne moom mooy sax école yu tëj yi ñu doon yàq ay école ak yi ni mel artu na leen ñëwaat nañ itam ci Balla euh, Gaye 2 moom nag ñu ne fi mu nekk nii mu ngi xalaat ci lii di fin de carrière am lii quotidien dañoo fasal seen xët wu njëkk faatu ñaam mi nga xam ne kon moom mooy meilleur élève ci concours général bu 2022 bi wante itam ñëwaat nañ ci Pape Diop ak la mu fekki camp présidentiel ba ak conseil constitutionnel ñu confirmé euh, résultat yi nga xam ne commission nationale de recensement des votes joxe nañ ko direct news ba léegi fësal seen xët wu njëkk Pape Diop moom nag ma ngay wax la tax mu dem fekki waa Benno Bokk Yaakaar wante itam Abdoul mbay mi nga xam ne euh, mu ngi yëkkul lu mel ni xame ñii di euh, régime bi kon Macky Sall ak ñamu àndal ci li nga xam ne noonu la ñu li nga xam ne moom mooy mbënd mi libération dañoo ñëwaat ci euh, mbirum euh, Mouhamed Dramé di sénégalais boobu nga xam ne 16 ans kese la am te police bu Dortmund ñoom ñoo ko faat dikkaat nañ si mbir moomu wante itam euh, ñëwaat nañ ci mbirum étudiant IAM yooyu nga xam ne kon dañoo dañ leen yóbbu woon ca France pour ab visite d'étude te ñu daw ba kenn gisu leen dikkaat nañ bu baax kon ci boobu le mbir stade yéen kaay dañoo ñëw ci suñu gaynde gii di Ismaïla Sarr ñu ne nag fi mu nekk nii club yu bëri euh, bëgg nañ ko euh, bokk na ci Manchester United ak Leeds ñëwaat nañ itam ci mbirum euh, Bamba Dieng ak ëllëgam foofule ca Marseille wante itam ci Liga bi nga xam ne kon dina ubbi ba suba tey ajuma ji sunu làmb dañoo nag euh, fësal seen xët bu njëkk ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye ñu ne daal moom bokk na booy xool ci mbër yi nga xam ne mbër yi gën a ràññeeku la euh, ci génération euh, ñu ne nag loolu lan moo ko waral kon am nañ ci def nañ ci ab jàngat les échos yéene kaay ñëwaat nañ ba léegi ci mbirum sénégalais boobu nga xam ne ñu ne rey bu ñaaw lañ ko rey fële ca Dortmund ca Allemagne te ñu ko amal di ay policier am na nag ay sénégalais yoo xam ne sax jóg nañ sénégalais fa nekk pour ñu def ci Euh, pour ñu leeral boobu boobule mbir wante ñu ñëwaat nañ ci combat euh, Gris Bordeaux ak Balla Gaye ñu nekk ka ca ci nekk CNG dagg na la ay koppar Balla Gaye ñàkk na deux millions cinq cent quatre-vingt mille kii di biri euh, kii di Gris Bordeaux kon deux millions quatre cent dix mille francs CFA tribune yéene kaay dañoo ñëw ci li nga xam ne moom mooy Pape Diop kon mi nga xam ne ñu ne bloqué na kon waa yeewi euh, wàllu ba dootuñu am euh, majorité wante itam ñëwaat nañ ci ab taxaw seetlu bu ñu def ci li nga xam ne moom mooy euh, inondation yi ndox yu bon yi ak it embouteillage yi ñu ne daal loolu tax na ba dak ñii di waa Ndakaaru ñu ngi dundu lu métti ñëwaat nañ itam ci sénégalais boobu am 16 ans te ñu rey ko fële ca Dortmund ca Allemagne te police def li ñu ne nag loolu ci ab manifestation wala boog ci ab opération boo xam ne policiers yi ñu ngi ko doon amal ci la amoon ñu ci sàkku nag ñu indi si ay leeral dañ koy jeexal ak yéenekaay bii di l'info ñoom nag euh, dañoo ñëwaat ci xeex bi nga xam ne kon Yewwi wàllu ñu ngi ko doon xeex ak benn bokk yaakaar pour am majorité ba ñu ne nag kii di Pape Diop dribblé na opposition bi maanaam duut na leen baleen fa dem ca fa nga xam ne moom mooy camp présidentiel fekk Macky ak i eh, ñoñam ñëwaat nañ itam si njiitu réew mi nga xam ne àdduna jëmale ci violence yi nga xam ne dañ koy nemmeeku ci milieu scolaire bi ak artu yam artu élèves ya nga xam ne ñoom ñooy def li ni mel li ñu loon tey eh, ci ay xibaar di rafetu rek seen lu kon di leen jox dig daje ëllëg ak ci beneen revue des jaa ngeen jëf